ñu dellusee ci waxi yonentu sallallahu alayhi wa kii kilifa xeet wi nga xam ci moom la lépp leere ku ko weddi alku te wax ni yàllaa ngi fépp daa bokk ci weddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nañu moytandiku loolu wax ji yonent bi wax qaala sallallahu alayhi wa sallam rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila alsamaai dunia xiina yabqa thuluthu llayli al axir rawahu albuxaari wa muslim qaala al imaam ibnu abdilbar rahimahu llah wa fi hada alxadis dalilu ala anna allaha azza wa jalla fi lsamaa'i ala alcarsh min fawqi sabca samaawaat wa cilmihi fi kulli makaan allahu akbar mbokk yi euh, al imaam ibnu abdilbar dafa leeral xadis bi mu ne mu ne xadis bi day tegtale ni borom bi subhaanahu wa taala ma nga ca kaw asa ma nga ca kaw arasam sa mi ngi ci kaw asamaan ca kaw arasam sa te xam ni aras moo gën a kawe juróom-ñaari waaye nag wa ilmihi fi kulli makaan allahu akbar wa ilmihi fi kulli makaan xam-xamam mi ngi ci bépp bërëb te loolu li ko alquran di saxal dafa bari wa huwa bi kulli cheyin alim ah wa huwa bi kulli cheyin alim borom bi tabaraka wa taala xam-xamam dafa mëdd lépp ndax moo sàkk lépp moo peeg lépp wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi waaye ànd ak jëmmam ju tedd ja nag ma nga ca kaw arasam sa yemoo ca bu hmm? daan ni kama qaalat aljamaati ahlu sunna ahlu lfiq wal athar ñi nga xam ni ñoo ŋànk yoon wi muy ahlu sunna wal jamaa sunne ahlu sunna wal jamaa ko ca yonent ba alayhi salaatu saxaaba yi taabiin ñëw ba ilaa yawmina haada képp ku féttéerluwul jàpp ci yoonu alquran ak sunna yaa ngi ci ahlu sunna wal mu ne ahlul fiq wal athar ñii ñëpp lii lañ fas te mooy mbooloo mi mooy ñi jub topp ci yoon wi képp koo xam ni dafa féttéerlu di wax ni yàlla mi ngi ci bépp place kooku pas-pasam ci boppam moo yàqu waaye képp koo xam ne yem nga ci li la yàlla fasloo ci al asmaa wa sifaat kooku li ngay fas ci bunt bi mooy yàlla yemoon na ci xarasam sa comme ni mu ko waxee ci alquran wa xujjatuhum zawahiru alquran fi qawlihi arrahmanu ala al arshi istawa loolu la wax ñii ñëpp nag fiñ tënku ci lay wii ngir leeral seen position mooy dañoo delloo lépp ci alquranul karim ji yàlla wax ni arrahmanu ala al arsi stawa seen borom day yemoo na ca kaw arasam sa lii lu ko gën a leer mbokk yi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbih waaw sëñ ñi ngi leen wit la ziar xam naa danga ma envoyé ab audio yow ne taxul ma meen la daa mel ni sa tur affiché wut waaye lu mën a xew audio bi nga ma yónnee ki si wax dafa mel ni maam góor njaay la moom nag moom daa mel ni xam-xam bi des na rawatina ci bunt bi yaakaar naa ne ci ñoonte bi daan wax ruway bu da boo muy ci lay bokk sëñ Abdourahmane daa mel ni daana wax ne am na si ñooñ boo déggee ñu tàmbali rek nga xam ne ñii daanaka waruñoo wax waaye daa mel ni lu mel noonu moo xew fii boo xoolee ni ñii diire baat yi rek wa ilmi yi ak aljamaati ak yu bàyyi ci yi mu wax rek ni mu ko waxee sax du doon noonu am na meen mbokk mu waxee bi mu ko waxal fële ci alfurqaan ne ko yow <laughs> naxu sax si naa ko buub waaye ak lu mën a xew day jéem sa xel ne yàlla daa am bërëb bu mu ne loolu nag lu wuuteeg aqidatu ahli sunna wal jamaa la ànd ak ne ñun waxuñu ne yàlla ngi ci bërëb bépp loolu moom nun dañ ko moom ku muy tontu waaye xam na tontuwut achaira yi moom ndax achaira yi waxuñu ne yàlla daa nekk ci béréb yëpp de waaye dañu ne yàlla nekkut ci béréb loolu lañ wax waaye dima ci mawaahibul qudus bu bu xuddoos bu sëñ Tuubaa lay wax ne amul bërëb te loolu itam moo nekk ci kutubul ashaira boo demee ci Bagdaad yi ci alfaraq bayna alfaraq di lay wax ne ahlu sunna def ci nit yàlla bërëb du ko peeg alxaafidul Bayhaqi sax boo demee ci al asmaa wa sifaat da wax ne bokk na ci li nga xam ne ahlu sunna eh, ay ay àndandoom tegtaloo nañ ko ne yàlla ni ko ci bërëb mooy xadis bi yonent bi waxoon amante bi am na foo xam ne day wax naa fa laysa fawqaka shay'un walaysa ba'daka walaysa dunaka shay'un maanaam de wane ne sun borom subhanahu wa taala dara féetewu ko kaw dara féetewu ko suuf bay xaqee ne de indi benn taaliq daal ni bu fekkee dara féetewut kaw yàlla dara féetewu ko suuf nekkut ci béréb ndax ku nekk ci béréb xaw dara féetale kaw mbaa dara féetale suuf kon loolu tegtal bu leer bu leer te tegtal la boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci yonent bi ci xadis bu wér bu wane ne suñu borom subhanahu wa taala discours bërëb euh, ma ñëw nag ci li ñu jéem a tegtaloo lu mel ni istawa istawa ñun amuñu ci problème bu fekkoon ne fa ca ay jafe-jafe du am bu fekkoon u maalumun te noppi euh, defe naa ne ay jafe-jafe du ndax Maalik moom firiwut istiwa jéemu caa dégg ne yàlla ngi ci bërëb yooyu yëpp dégg ko ci ku ko ci dégg yow soo dégg ne boppam waaye Maalik moom fam ci yem buñ ci yemoon rek ay jafe-jafe du waaye bëgg koo firee nag jëm yàlla ju war ci yeneen jëmm foofa la problème bi nekk ñu koy wax jëliwuñ ko ci alxuraan jëliwuñ ko ci sunna euh, ñu seetlu ne itam al istiwa am na fukki maanaa ak juróom tayit euh, maanaam mi nga xam ne moom la ci moom la waxee bi ta tànn ci luxa muy jëmm di ci kaw jëmm loolu mënta nekk fii nga xamul tax mënta nekk mooy boo ko defee da ngay indi jafe-jafe bu rëy rëy mooy fexe ba alquran nekk mutanaqid maanaam loo xam ne leen la day weddi boppam ndax boo ne istawa jëmm yàlla ji moo war ci kaw jëmm aras ji comme niñ koy niñ koy waxee ñoom léegi dañ la laaj kon ne la ah yow kat kon am nga problème ndax suñu borom subhanahu wa taala kat ñëw na ci xadis bi ne ki nga xam ne mi ngi julli suñu borom subhanahu wa mi ngi diggam ak xibla xanaa kon yow sa yàlla ji moom daa ne ci suuf ne ci kaw nan ngay def ak wa huwa allahu fi samawati wa fil ardi yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaalamu ma taksibun waxut fi samaa yi doo nga di daa wax wa fil ardi tamit kon yow xanaa bu fekkee noonu ngay noonu rek ngay dégg yow yow am nga jafe-jafe wala fa ayna waatu fa ayna waatu wallu fa ayna waatu wallu fa xamma wajhullah bu ngeen jublu rek <laughs> foofa mel na ni kon bu fekkee déggin woowu rek la kon nan nga def bu féetli ko benn côté day mel ni kon côté yëpp lay war a ne kon bu fekkee yow noonu ngay dégg moo tax ahlu sunna xeeti ay yëpp nga xam ne day wane ne zaahir bi boo dee xool zaahir bi li mën nga caa dégg luy nuru bi rek dañ koy tawil loolu nag jëgoowut ci wàllu asamaan dong nga xam ne ñoo ko féetale asamaan ñooñu dañoo def ñooñu mutanaqidoona la dañuy weddi seen bopp ndax li tax seen bopp mooy am na yeneen yu mel noonu yoo xam ne buñ ko toppoon ci seen déggin woowu dañuy wax ne yàlla ngi ci suuf te yooyu dañ koy tawil nañu nangoo tawil fii nag buñ ko nangoo woon tawil foofee ca yee ca des itam duñu jafe-jafe waaye dañoo dañoo def tanaaxut mooy nangu tawil fenn te doo ko nangu feneen moo tax ibnu xajar al asqalaani boo demee ci xarxul baar yi ci hadis bii ma wax léegi ci ginnaaw day wax ne eh, yàq na mboolem li nga xam ne ñuy wax ne yàlla nga ci kaw aras lañ lépp hadis yàq na ko ndax noo def ba wax ne noo noo def ba tawil hadis bii nga xam ne day saayir bu day nuru na yàlla nga ci suuf war koo mën a def itam ba tawil lépp loo indi luy wane ne yàlla mi ngi ci kaw suuf mi ngi ci kaw defe naa li gënoon a yomb am na benn xadis sax boo xam ne solo na ko ci yont bi te it wér na yont bi naa alquran wàccul ngir leen li di weddi la ca des lu ngeen xam man ngeen koy jëfe waaye itam lu ngeen xamut def leen ca delloo leen ko ka ko xam waaye dugg si aay yoo xam ne xamu maanaam dégg sa déggum xel moo réer ñu bëree bëri moo mel ne nag waa ji tudd na Ibn Abdul Bar Ibn Abdul Bar kilifa la bokkul nag ci asalafu saalix moom waaye benn borom xam la woon ci borom xam maalik yu mag yi am na nag euh, ay ay njuumte yoo xam ne borom xam yi leeral nañ ko boo demee ci alxaafidu subki tabaqaatu shafiiya defe naa am na benn kenn ku benn tarjuma mu doon wax loolu lii mu wax fii nii da cee kilifa yu malik yu mag ya ñu bëree bëri xëy na kilifa yu yu mag yi ci ay jamonoom ñaar rek nga ci mën a génne ñu doon wax ju mel nii ci ni borom ni xam boobu waxee. booy demee sax ci sayru sayrul xaatar bu ibnul jawzi mi ngi naa wala qad ajibtu li rajulin andalusiyin yuqaalu lahu bnu abdil barri صنف كتاب التمهيد فذكر فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش nee na Ibnul Jawzi nee na yéem na waa ji ñuy wax Ibn Abdul Barri téere taalif téere bu ñu wax tamxiid mu tudd ko ne xadis bi nga xam ne yonent bi dafa wax tey wane ne sunu borom subhanahu wa day wàcc loolu day tegtal ne kon day sunu borom subhanahu wa eh, ci kaw aras ndax mu doon loolu du mën a wax ne kon mi ngi wàcc ndax kuy wàcc xëy na kon <laughs> li mu bëgg a wax mooy ku ne ci kaw moo mën a wàcc Ibnul Jawzi ne wa haada kalaamu jaahil ne lii waxi ku xamul dara la loolu la Ibnul Jawzi wax xaafis bu mag la moom itam borom xam la ci wàllu affaire ponkal la waaye xam-xam yu bari sax nag euh, jàmbaar la euh, waaye Ibnu Abdul bari doonte am na ay rëcc-rëcc ci côté dafa bokkut sax ak waxaab yi pas-pas ci misaal rek bu ma ko jëlee fii ci lu nuzul bi nga xam ne moom la waa ji doon tudd Euh, Ibn Abdul Barri euh, daa bokk ci lam ca wax wane ne sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci li xadis bi mën a tekki mooy du jëmmi sunu borom jëm mooy ñëw waaye mbiram mooy ñëw moo tax boo demee ci tamxiit gi nga xam ne moom waa ji doon tudd ma nga naa am na benn asar bu muy askan Malik moom Ibn Abdul Bari asar bi nag am na ay jafe-jafe ci sanad bi waaye Ibn Abdul Bari moom teewul mu askan ko Malik nee na su ila an il xadis inna allaha yanzilu fi samai ila samai dunya yanzilu fi lleyli ila samai dunya fa qaala malikun yatanazzalu amruh mu ne laaj nañ Malik ne ko yàlla ka subhanahu wa taala dana wàcc ci asamaani adduna ji Malik ne ah, mbiram mooy wàcc nga xam ne kon moom jëppewu ko jëm suñu borom ba ji subhanahu wa taala mooy wàcc waaye mbiram mooy wàcc mbiram mbirum mbirum suñu borom loolu nag du kiiman surtout sax yàlla day waxe noonu ci béréb yu bëree bëri yaakaar naa xadisul nuzul xëy na taxumaa jug tey waaye am na ci borom xam yu ko leeral ba wane ne lii Malick di wax lu mën a nel lii ñuy askan Malick te Ibn Abdul Barri ñii li ci xorom mooy dañee ne wa qad yaxtamilu an yakuna kama qaala Malick maanaam xadis bu nekk mën naa nekk ni ko Malick waxe waaw maanaa ne yërmande yàlla yooyu ñooy wàcc waaye du jëmasul borom ibnu abdul bari mi nga xam ne moom la moom góor di tudd ñu bàyyi xel ne kon moom wuute nag fekk si waxe bi ci bërëb yu bëree bëri te loolu yëbalewu ko ci Malick dong waaye ci borom xame xadis yi la leen ko askan moo tax boo demee ci tamit xaaju juróom-ñaareel bi page cent quarante-trois mi ngi naan qaala qawmun min ahli al-athari aydan innahu yanzilu amru wa tanzilu rahmatu nee na am na ñi ñoo xam ne ci gaa yi xaddis yi lañ nee nañ la muy tekk rek mooy mbirum suñ borom ak ma yërmandeem mooy wàcc waaye waxuñu la jëmm jëm mooy wàcc bal sax ñi nga xam ne ñoo ko dégg di ko xam yi dégg Ibn Abdul Bari da leen di raddu nee na Nuaym nee na yanzilu bi daalik te loolu mooy li waxa bi wax mooy jëm yàlla ci moom mooy wàcc Ibn Abdul Bari neen na borom xam yi nga xam ne ñoo mu dégg lii moom du waxi dara dafa ñoom ndax loolu eh, mu ne eh, eh, ndax loolu takk yi yàlla maa ngi jégalu dama am ko ma woo ci bi may def vocal bu njëkk bi ndax nee na loolu kayfiye la wutal yàlla ab kayfiye la te ahlu sunna wal jamaa ñoom loolu bokkut ci seeni mbir ndax wax ne yàlla jëm wàlla jëm may wàcc loolu day fekk yàlla euh, day fekk yàlla mu doon koo xam daf koo mën a wër ndax bu fekkee wàcc na ci asamaan rek kon asamaan wër na ko ci ni mu ko déggee moom te loolu mënta am ci yàlla moo tax mu ne qaala abu omar laysa hada bi cheyin inda ahli lfahmi min ahli sunnati li anna hada kayfiyatun wa hum yazrauuna minha li annaha la taslahu illa fi ma yuxaasu bihi iyaanan waqad jalla allahu taala an dalik Euh, ñu bàyyi ne ñu bàyyi xel ne Ibnu Abdul Bari bokk na ci ay fasusam comme ni mu ko leerali ci al istizkar ak at mooy yàlla du jëmm du koy yëngutu ay xeeti toxo yi nga xam ne euh, moom la waxaa bi waxe yëpp moom bukku ci ay mbiram moom day wax sax majaaz ci da koy wax Ibnu Abdul Bari euh, maji oog yooyu ko dégg ni ko waxee bi waxee yu bari itam da koy da koy tawil waaye Euh, al istiwa umum kenn ku ci mën a tegtaloo ba wane ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ci béréb amut ñu bari ci ahlu sunna ne dañuy dañ sax duñ dugg sax ci maanaam dañuy tax wér yàlla xam lu mu ci namm ndax maanaa yi daa bari te boo duggee ci di ko wutal mel ne maanaam man nga caa moo tax ñu bari ci xam ne noonu ñu ko firee yemoo rek nga xam ne istawa daa di bàyyi noonu moo gën a wóor di dugg ci maanaa yi dugg ci maana yi mën na laa indil nga wax ca maanaa yam mën doon nga wax ca boo xam ne amoo ci lu la leer te baat la boo xam ne daa bari maana yu mën a am te ñi koy tax di yëpp ci wahabi yi di wax daa istiqraar la loola moom daa dëppwuta sax aqida ahlu sunna wal am na ñu ci yor maana yoo xam ne mën naa ne waaye bi boobu mu bukk ci ñi wax kuy wax naa yàlla daa toog wala dafa istiqraar yooyu yëpp aqida boo xam ne comme ni ko xal xaafis albayhaqi indee ci asar boobu aqida la boo xam ne daa dëpp wut ak sa aqida nga xam ne moo wér waaye bi nga xam ne itam ahlu sunna wal jamaa eh, ci lañ ne